sifflet vuvuzela tama sabar bool leket lu mën a tëgg lu mën def bruit na ko def. ngir ñu mun a fexe rek ba ñu teggi loxo détenu politique yi li ni mel la plateforme F24 woo sénégalais yëpp ñu amal ci dibeer bi juróom-ñeenti waxtu ci guddi jëm fukki waxtu ci guddi ginnaaw seen ndaje bi nga xamante ne tey jii lañ ko fas yéene woon amal te préfet bu Ndakaar tere ko force vive yu Sénégal nag janoo nañ tey ak taskatu xibaar yi ngeen fësal seen mer ci li ñu duppee ab provocation. provocation dalal leen seen xel gouvernement wu Sénégal seen provocation bi du jàll duñu leen ci topp parce que bu dee bravé ñu ak yéen ñoo nekkandoo woon 2011 xam ngeen ñu bu baax a baax a baax. dëkk boo xam ne yaa ngi tëj ñëpp amuñ benn métier bu ñuy def lu may cag-cag mu di nag rassemblement pacifique niñ ko tuddee fi ñuy woo sénégalais yi nekk tamit ci diaspora bi ku ñu def ni ñoom ñoom nañu seet ban waxtu moo baax lépp loolu ñu wax mu xam ci xumbate mu xam ci leeral ah li ñuy wooyee reeteet ci ci biir ci wolof nañ ko def ñoom tam wane ne que biir Sénégal ñu gis tey jii ñoom tam ñi ngi ci biir ñi ngi ci xeex bi ñi ñoog yi ñoo ànd di ko def. fi ñu toll nii tembe lu toll ci juróomi manifestation yi autorité tere nañ ko waa plateforme bu F24 waaye taxul membre yu force vive de la nation bi di xamle ne mënatuñu rek muñ li ni mel di gàllankoor seeni ak ak yelleef. bu nit ñi demee ba sës rëkk boo moytu danañu expérimenter danañ jëlaat beneen stratégie bi nga xam ne boo moytuwul. ñaanuñu ko mais il sera obligé de subir les manifestations. bu ñu wéyalee li ni mel li ñu duppee cohésion sociale ak stabilité yi ñu dund ba si ñi génn boo moyul rekk mu takk suuf.